waa asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp fas yéene dellu siwaat nu ñu koy defee euh, samedi bu nekk ak mercredi bu jot fas yéene indi sunu jàngat bu gàtt ci situation réew mi fu mu tollu akit it indi maanaam sunu xalaatan bu gàtt ci perspective bi boo gisee ñu koy tuddee émission bi horizon deux mille dix neuf maanaam fii weer ak ñetti semaine ñaari weer yu manqué sénégalais yi war na dem ci mbañ gàcc gi maanaam ci urne yi pour élire un président de la république loolu nag mu soxal ñu trop. lan moo tax ñu soxal ñu ba ngeen gis image yi tey nekk sama ginnaaw muy marée humaine bi nga xam ne dafa génn démb accompagner opposition bi ci xeex bi nga xam ne mi ngi koy xeex ak nguur gi mu xaw a jur nag yaakaar xaw a jur yaakaar bu ndaw mu mel ni mayonnaise bi dafay commencer jël ci diggante opposition bi ak population bi ndax wootee li ni mel nit ñu toll nii ñu gën a def marché bu mel nii au-delà di jàngat di wane ni ñun sénégalais am na ñu maturité démocratique ba mun nañu woote ay manifestation xeex du am débordement du am lépp mun nañ koo maitrisé bi nga xamee ni ñi ko wara a délivrer maanaam autorisation bi ak accompagner ko def nañ la la seen wareef kon image bi ko gis da ngay kontaan d'abord ci maturité démocratique des Sénégalais mais tamit nekk na une mobilisation boo xam ne qui vient à son te ba tey nag des na l'opposition doit continuer à mettre la pression sur ce pouvoir ba ñu xam ni dañ leen a dénk réew mi. wante du seen moomeel te lu ñu la dénk nag waroo koo jàppee comme la nga moom lu la dénk boo ci indi benn coppite àndal ak ñi nga xam ne ñoom ko seqal ngeen waxtaan Cheikh Doudou Mbaye lu mu wax mi Cheikh Doudou Mbaye nuyu naa la mon ami mon frère du bare bare bare mayonnaise bi ak <laughs> wax dëgg la kon bu ñu la dénkee mbir ngi indi ay coppite danga nga war a ànd ak ko seqal ngeen waxtaan ci seet coppite yi ndax war nañ koo def. ak naka lañ ko war a defee xam nga tey Sénégal dafa amoon yoo xam ne lañu ko tuddee des acquis démocratiques depuis le code consensuel Kéba Mbaye de 92 code boobu consensus boobu amoon dañ ko waroon di améliorer au fur et à mesure que ñuy dem. Abdoulaye Abdou Diouf l'avait accepté Abdoulaye Wade ci loolu la basé wu Macky Sall moom dafa ñëw malgré que ni am nañu ay acquis démocratique mais mu jël acquis démocratique yooyu yëpp jël ko teg fële ne comme que j'ai une majorité mécanique à l'Assemblée nationale qui me per permet de voter toute loi boo xam ne neex na ma rek alors man consensus dootuma ci wax mais waruñoo bert l'attitude du président de la république waruñoo bert xanaa kay li ma ci jaaxal kay mooy naka la ñu fexee ba yenn kaddu yi nga xam ne moom yëkkati woon na ko ak yenn comportement yi nga xam ne amoon na ko mu daal ñuy rëcc mu daal ñuy rëcc rappelez-vous président de la république Macky Sall dafa toog ci dajewu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi doon waajal le référendum mi nous avons la force et les moyens nous allons les faire subir la loi de la majorité mi Nous avons la force et les moyens. Nous allons les faire subir la loi de la majorité. Pour moi, la démocratie, c'est quand la majorité fait subir à la minorité sa loi. Est-ce exactement le sens que nous donnons à la démocratie? Man dama jàpp dans une démocratie aussi bien que la majorité que la minorité doit pouvoir s'épanouir mais quand on vous dit que ñi nekk ci kuje gi nañ ñan jaay doole parce que yor nañu yor nañu doole yor nañu pouvoir yor nañu xaalis foofu la commencé avant loolu sax il avait déjà commencé à fausser les mais boobu da ko wax ñëpp ko est-ce Abdoul Wahab je te pose la question est-ce en démocratie normale qu'on fait subir que lan subir faire subir c'est quoi c'est contre sa volonté et en démocratie on doit pas imposer à quelque chose contre sa volonté dañ ko koy jox ko wala mu rejeter ko on accepte que la loi de la majorité am na voté nañu loi mais de là à faire imposer amee ah devient un dictat donc boobu ba tey nee na comme que am na doole nee na comme que am na majorité à l'Assemblée nationale nee na comme que am na xaalis bu bari alors lépp da koy def par force du def dara par consensus lépp par force la def dara def par consensus moo tax image bi tey dafay dalal suñu xel ñun nga xam ni commencé woon nañu am jiixi jaaxaat ci opposition bi mais lan moo leen dal pourquoi mënuñoo génn indi benn stratégie taxaw xeex ak nguur gi parce que un acquis doo ko seetaan muy nax saay doo ko seetaan muy nax saay il faut se battre pour que acquis yooyu des ba pare ngeen wuti yeneen xam moom la Wolof di wax ni am ànd toj ànd doo bari ànd am acquis démocratique le code consensuel de 92 nga ñëw ne léegi soxlaatuma boobu nga génneeti ko mu daw war a xeexiwaat encore defaat yeneen combat yu ñu defoon 83 qui ne se rappelle pas de 83 qui ne se rappelle pas de 93 qui ne se rappelle pas de 98 le Sénégal a traversé des moments très difficiles de son histoire avec beaucoup de morts beaucoup de blessés des dégâts yoo xam ne ma day tàlli loolu yëpp dañ koo defoon ba am ay consensus alors bu ñu ñëwee xëy consensus yooyu dafa mel ne sacrifice yi ñu defoon yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp amatul solo moo tax kaddu yi nga xam ne ni professeur Abdoulaye Bathily yëkkati na ko wax ko ci Jeune Afrique yu mat a bàyyi xel la yu mat a mérité professeur nee na cinquante ans que mu nekk ci langue politique Sénégal bi jamais musul gis ñu instrumentaliser la justice de cette manière pour rek éliminer ay candidats aux élections présidentielles loolu rek misaal la bu lay wan ni le pays va mal en matière de gouvernance Pape Ndiogou Fall mi ngi may doon nee na Tocqueville disait la tyrannie de la majorité ce n'est pas de la démocratie ne mënut a nekk de la démocratie en démocratie tout le monde doit pouvoir s'épanouir ña nekk ca nguur ga comme ña nekk ca kujje gi mais faire subir la ba ma amee je me suis on a la force on a les moyens on doit faire leur faire subir la loi de la majorité noonu la ko waxee woon leur faire subir la loi de la majorité alors ma ne subir subir subir essayons de définir subir camarade Binta Thiam ndax yaa ngi may jàppale foofu ci la définition de subir ah, bu fekkee mën nga ma ci jàppale tuuti euh, rajo euh, bonjour mon grand mu ne ko waa bonjour euh, subir subir subir subir subir alors Euh, la définition de subir rek pour pour pour pour waxtaan bi leer rek ah pour waxtaan bi leer subir définition de subir c'est quoi comment naka lañ koy définir hein définition alors euh, euh, nuñ koy définir waaye voilà Larousse moom la ñu xam depuis ba ñuy jàng école ba tey Larousse moom lu mu wax ci subir nee na. Euh, li la wax ci subir supporter contre son gré une chose pénible fâcheuse désagréable supporter contre son gré une chose pénible fâcheuse désagréable alors quand le président de la République Macky Sall dit que ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ils ont la force kon ils n'ont qu'à faire subir maanaam contre leur gré quelque chose de pénible de fâcheux de désagréable à l'opposition sénégalaise déedéet euh, sëñ bi subir ak euh, dékku bokkul dékku mooy ñu teg la nga nangu nga dékku mooy ñu teg la dara nga nangu waaye loolu ñu lay teg mooy subir te faire subir démocratie warut doxee noonu donc ba ñuy dem ci référendum ba ba ñuy dem ci élection législative yi yëpp ki Sall mi ngi doxal loo xam ne ak du ci indi jéem consensus dana jéem a yeeyee waaye yax ni nañu waxtaan parce que xam nga moom dafa ñëw jàpp ni politique yëpp ay naxe mbaay la il a infiltré l'opposition et il a bien infiltré l'opposition suy woote pour waxtaan am na ñoo xame ni ci opposition bi dañu jóg ah, dem bokk ci waxtaan wa wan nit ni ñoom dañoo bokk ci kujje gi fekk bokkuñu ciku kujje gi ña nga nekk ak moom Macky Sall di liggéeyal di ko liggéeyal moom ba pare di bu bokk politique bi tey feeñ na tey feeñ na kan ci yéen moo mën gëm ni kan ci yéen rek moo mën a gëm ni Madické Niang ci ñaari weer wala benn weer mun na fa am soixante mille pare te Pape Diop ak lu mu liggéey ci Sénégal yëpp mun na am soixante mille pare dama leen di laaj rek kan ci yéen Hmm? Njawar nee na numéro pour nga jot ma c'est baaxul mais mun nga mun nga woote ci mun nga woote ci euh, euh, ci Facebook bi directement Njawar euh, ci ci Facebook bi directement mun nga woote ci Facebook bi directement SMS Facebook bi wala wala wala nga utiliser Zoom bi ah télécharger Zoom bi boo télécharger Zoom bi mun nga dugg dama dama leen laaj rek kan ci yéen moo mun a gëm tey jii nii. que ni Madické ci diir bu gàtt bu matul weer mën na fee dajale ay signature ba parrainage am mat te Pape Diop mi nga xam ni boobu ba tey mi ngi politique ci Sénégal parrainage am mënut a ku ci sa xel teeyul da man sama xel teey na ci la Madické war a mën a jëlee ay parrainage am fan la war a mën a jëlee soixante mille yu mu matale Pape Diop mi ami député boo ko gis-gis nga xam ne demoon na ba gagné ay mairie nekk pratiquement ci Sénégal yépp ñu ne la kii mënta matul ay signature am wante Madické Niang ma nga xam ne diggante weer ba muy fippu ak ba muy présenté wu ba ñëpp sax na waa mais moom heure bi mu jukkat fan lay jëlee ay ay ay. Euh, nu mu tudd signature waaye ñu ne la kooku mat leen day daal am problème day daal am xam nañu ni moom président Macky Sall infiltré na opposition bi am na ay nitam ci biir ba tax na ko nag mu taxaw fëgg dënn ni léegi daal man de sax su ma waxtaan sax danaan ah, nañ leen ñëw ñu waxtaan ci biir waxtaan boobu ay nitam yam mu tànn dugal leen ci biir opposition bi ñooy génn dem na ña ngay waxtaan. léegi nag. loolu am na foo xam ne foofu la toll ci ñii nga xam ne tey ñoo nekk ci kuje gi pour dëgg dëgg dëgg dëgg renverser la tendance et ils en ont les ils en ont parce que ku gis bii mobilisation démb te des na ah, am na ñoo xam ne tey bu ñu génnoon wax ñaari yoon. daagu ñaar yoon nguur gi yëngu donc impérativement waa Cheikh Charles Thiam nee na il se peut que Madické soit à moins que mu nekk loolu à moins que mu nekk loolu <laughs> Cheikh Charles Thiam lan rek moo mun a expliquer que vraiment Madické am lu maanaam Pape Diop amul le parcours de Pape Diop li mu implémenté wu dans tout le Sénégal ñu ne la ko mënul matale ay signature am waaye Madické ña mu jug en moins deux mois matale kon dama ko mës wax sama benn jigéen bu nekk PDS ma ne ko man de Madické Niang mi wóoluwuma ko ndax lu dal opposition bi rek moom mii la ak ñenn topp bi rek ndaw si dal sama kaw waaw bu leen jël seen defet teg ko Madické Niang peut-être waaye yow classe mu classe bu metti ci Facebook bi ma ne ah xëy na je suis allé un peu trop loin bokk boobu Madické Niang mais sama xel dafa mësa rek tey ci ay mbiram man am ñoo xam ne ci opposition bi rek sama xel dafa téye ci mbir dama mos a ay mbiram assemblée national xeex ya maanaam xeexu euh, euh, euh, nu mu tudd parrainage bi musuñu ma doy musuñu ma doy ana njawar Dieye depuis Italie ah Ndiaw tu peux toujours appeler ci euh, nu mu tudd SMS Facebook bi dina dugg hmm, bu fekkee mënoo télécharger télécharger Zoom bi musu ñu ma doy ba ma ko waxee ndaw si classe ma classe bu metti ne ma wax bu ñu jël sunu sunuy sunuy sunuy sunuy defet ñun di ko teg ñoom waa PDS. parce que boo xoolee sax depuis législative yi dafa am ñoo xam ne ci camp wu PDS ak ci camp ñu ànd ak Khalifa ñoo xam ni jege nañu nguur gi trop ils ont fait saborder la liste parce que c'était sûr jonction euh, coalition PDS ak euh, coalition Khalifa Sall lors des législatives c'était garanti que ni. dañuy am une majorité à l'Assemblée nationale c'était garanti alors qui avait intérêt à ce que cette liste-là soit sabotée qui avait intérêt à ce que cette liste-là soit sabordée dans les deux camps am na ñoo xamee ni dañuy liggéeyal nguur gi et ils ont fait saborder euh, la liste ils ont fait saboter la liste kon moi j'ai toujours dit que ni mi travaillait pour euh, euh, Macky Sall mais bu ma génnee wax ko mais ndaw si daf ma talaata ci Facebook ba ma dama dama dellu ginnaaw ma ne ah defal naa bul tooñ xëy na yow sa xel ngay demee rek mais kii elle est au courant des choses ndekete ndekete yoo ah, moom ndaw si xëy na dafa amoon affinité pour Madické te sama grand baba Jaw tamit bindoon na fi benn texte wax les quatre têtes dans le vent tuddoon ci Modou Diagne Fada tuddoon ci euh, Abdoulaye Baldé tuddoon ci maître Aïssata Tall Sall keneen quatrième bi fàtte naa tey l'histoire semble lui donner raison parce que bon maître Aïssata Tall Sall je me demande en fait est-ce qu'elle fait partie de l'opposition wala dama ko dégg ci marché yi dama ko déggul nag ndax ma nga ci woon bu dem bi wóoruma ndax ma nga fa woon maa ngi koy laaj alors mënuma wax ni ku mel mi ngi jouer double jeu cest à que mënuma ko xalaat c'est pas possible mais Baba Diop mu koy wax yàgg na mais mais mais des partis ay ñoom Samuel Sarr ay ñoom Madické Niang c'est-à-dire que Macky Sall les utilise pour nee na yee yaay a wàññi l'électorat de Watt à parce que xam nga euh, psychologie dafa baax ñu comprendre Sénégal nu muy doxee ak Aïda Mbodj Sénégal nu dafa am benn waay bu ne. Karim fan lay jëlee euh, ñu ko voteel sénégalais yi xamuñu ko amul base politique amul appareil derrière lui ma ne yaa def erreur bu mag ma ne ko dans d'abord nekk doomu Ablaye Wade rek adresse la un parce que psychologie Sénégal moo demee noonu ma ne ko au parti démocratique sénégalais. c'est-à-dire que l'électorat qui est c'est l'électorat de Abdoulaye Wade pas du parti démocratique de Abdoulaye Wade ku Abdoulaye wax ni kii la moom la te jiital na doom ji kon moom la alors Macky Sall sachant que ni Abdoulaye Wade a un extraordinaire à Touba qui lui est fidèle mu xool ci ñi nga xam ne ñoo wër Abdoulaye nekk Touba pour jéem leen a jël wàññi dooleem foofu. C'est ce qui explique aujourd'hui euh, euh, euh, Madi Kenya, c'est ce qui explique aujourd'hui Samuel Sarr. Kon, l'opposition a du pain sur la planche. ma nga xeex ak Macky ci biiram tamit dafa am ñoo xam ne dañ ko infiltrer toog di liggéey ak Macky moo tax ma ni cette manifestation d'hier nga xam ne sedd na xol certes mais des na il faut continuer à mettre la pression Sénégalais yi di continuer di génn di ànd ak opposition bi fii ba nag parce que ñu ngi xooxu parrainage nga ñëw déposer sa liste de soixante et quelques parrainage euh, parrain ñu ne la éliminer nañu neuf mille waaw ci yoon war nañoo wax ne neuf mille yi lii la ñii dañoo signal kii signal euh, signal kii signal kële bu fekkee tel est le cas ñoo ko signé tey ko mais la loi dafa am lu mu lu mu prévoir ci loolu mooy képp ko xam ne signé nga ñaari liste mais dañ laa war a teg daan xanaa ñooñu da leen identifier yóbbu leen ci kanamu yoon wala bu fekkee ni signé wuñu ñaar liste yëpp nag maanaam man mun naa ñëw jël carte d'identité yaay Ami Diop dem signé euh, fen feneen te te yëgu ko xanaa loolu dinañ ko lijjanti mais loolu pour lijjanti ko xanaa danañu génne yow buñ ne la euh, euh, maanaam comme par exemple réew mi éliminé nañu dix mille signature am dañ ko wax ne sa signature yii la ak lii ak lii ak lii lii moo tax ñu bii doublon la bi baaxul bi signature bi conforme bi maanaam motiver ko ce dañ ko war a motiver motiver ko pare wax ñan la ah nga dem lijjanti ko dem lijjanti ko kon xeex bi du du du euh, pare yi ñii am nañu ñee amuñu de des na de ndax xam nga parrainage bi dafa am la société civile ma nga fa la société civile ma nga fa toog di xool ndax parrainage bi ni ñu koy séentoo mi ngi jaar yoon mënut a jaar yoon foofu sax mën nañ leen jox la le bénéfice di doute mais boobu dama leen bëgg wax ni c'est de la poussière aux yeux xam ngeen naka xam ngeen naka ah waaw voilà euh, nu mu tudd conseil constitutionnel bi am na ñu mu éliminer am na ñu mu nangu donc léegi bu demee nag ba des conseil constitutionnel kese parce que ñooñu fa nekk si juste pour le parrainage bu parrainage pare ñu génn leen fa nag war a génn nag liste définitive da ñoo war a dem jàkkaarloog euh, Macky Sall alors là ba ñuy génne liste définitive boobu nag maanaam société civile bii duñ fa nekk waa conseil constitutionnel rek ñoo fay nekk te ci boobu lañu ñu war a décider du cas de Karim Wade ci boobu lañu ñu war a décider du cas de Sall ci boobu la war a décider du cas de tous les autres ndax amul ay cabaxalu ndaw yoo xam ne dugg nañ ci te te bu boobaa bu ñu ko éliminer dañoo attendre gore leen kat ndax barki démb la fi d'accord ci seen parrainage bi tey bu d'accordul ak ci lii il faut que l'on soit très vigilant. Il faut que l'on soit très, très, très vigilant. Nous avons en face de nous un régime qui est prêt à tout. Attends, il faut bien, I mean, à tout. tey bu fekkoon dañ koy bind suñ ne un régime pré atout bi dañ koy bindee en gros pour mu am lu mu marqué nous avons un régime qui est à tout pour avoir un deuxième mandat kooku nag nañu bir nañu leer ni dina ko jaral lépp lépp lépp lépp lépp lépp ba bu amee sañ-sañ fitam rëy ba rëy sax le soir du 24 mi ne gagné na au premier tour sañ na ko mais ne dafa war a fekk mbéju kanam ma ko koy fajal boppam ñun ñëpp bir nañu xam nañu li Macky Sall nar ak lu mu bëgg lan moo ci des mooy lu mu ko jaral rek na jaral opposition bi lu ko ak lu ko munti jaral na jaral opposition bi lu ko ëpp fexe ba fichier électoral bi ñu jot carte électorale bi ñu jot ci xam fan moo am bureau de vote fu amul bureau de vote s'il y a des bureaux de vote fictifs ñu xam ko tel ko lijjanti teel a jug ci ordonnance ak mis ak ak kii de mission yi lépp ñu définir ko ca ba muy leer au moment avant les élections loolu rek moo mën a sécuriser vote yi ñi war a bokk ci émi boobu maanaam euh, élection yëpp tamit bokk que Karim Wade soit présent que Khalifa Sall hmm. Khalifa soit présent loolu tant opposition bi mi ngi ciy dox yàlla mën na cee def ndam mais attention attention Ah non, Lodbeck, tu ne pas des farceurs, tu n'as pas vu ce qu'ils ont mobilisé hier. a ah, quand même Lodbeck. Euh, euh, D'accord, non, il y a une mais euh, est-ce que tu peux faire mieux que ce qu'ils ont fait hier? Lodbeck, il n'y en pas. kon encouragé wu leen nañ leen encouragé jàppale leen ñu xeex xeex bi mon cher Lodbeck ce ne sont pas des farceurs. c'est des gars le changement ñu ngi ci terrain bi ñu ngi ci àll bi ba pare ñu ngi marche bu jotee ay par exemple quand tu vois man su ma gisee ku mel ni de Decroix sama yaram dafay daw man en tant que amaat am presque cinquante ans aujourd'hui damay j'ai honte j'ai honte je me dis voilà des gens yoo xam ni ils ont sacrifié la vie pour ce pays-là un job de croix depuis ba mu nekkee élève au lycée Lamine Gueye 68 ba tey mi ngi xeex. waaw marie en Marie-Ange Sarr merci beaucoup nee na démb moom wane nañ seen bopp dëgg dëgg dëgg par exemple boo xoolee ci jigéen ñi nga xam ne ni ay ñoom Marie-Ange ay Lat Diop ay ces femmes nga xam ne ni lu fu opposition woote ñu génn ñoom na fi Diallo. ces jeunes là nga xam ne aujourd'hui ñu ngi ñoom ñoo jël le combat non on doit pas leur dire que c'est des farceurs dañu war a leen accompagner leen le reste nag damay déglu le colonel Abdoul Aziz Ndaw ci benn interview bu mu def ak enquête deux cent vingt un et qui parle de la maturité du peuple sénégalais. C'est vrai que le, le peuple sénégalais est très mature maintenant. Ah oui. mais reste à ce que ñu jox le minimum bi nga xam ne si lay prouver sa maturité en 2000 il avait ce minimum là il a prouvé sa maturité en 2012 il avait ce minimum en 2007 en 2012 il avait ce minimum il a prouvé sa maturité dafa fekk nag ni ci diggante 2012 ak léegi dafa am quelqu'un qui est à la tête de ce pays qui croit nous pouvoir nous gouverner comme on gouverne euh, les, les communistes parce que pour moom c'est un communiste communisme la gëm dafay mbubboo démocratie pour arriver à ses fins ñun ñëpp ñu xam nañ ne Macky Sall n'est pas un démocrate Macky Sall ñëpp xam nañ ni c'est autoritarisme wala lay dundee c'est un communiste te olof dafa am lu mu léebu yenn saa duñ ciy bàyyi xel olof dafa am lu mu léebu te yenn saa duñ ciy bàyyi xel nee na lu njëkk ci xol des wax ju am solo la c'est-à-dire que Macky bu muy ximmi di màgg communisme moo enchanté woon bu muy dugg ci politique communisme moo ko doon c'est-à-dire que maaw moom la dund maaw la xam maaw la gëm moo tax AGPADS la njëkk dem adhéré mais aussi comme nga xam na ni a d'abord moom ses convictions et y a la réalité sénégalaise mi xaaral il faut que nag y a ma conviction mais y a la trace sénégalaise se sur la sénégalaise xam ni communiste yi duñu dem fenn mu dem adhéré au parti démocratique sénégalais ba tey yàlla def ko lii mu ko def à partir grâce au président Abdoulaye Wade et au parti démocratique sénégalais ba mu jotee ci nguur gi daf ñu wan ni moom en fait il n'est pas libéral il n'est pas socialiste il est communiste xëy na nag ñun la yàlla suturaal ba nga xame ni ñi ko fi jiitu ndax Senghor quelque quelque ak lu ñu munti wax yeneen réew yi ba ñuy tabax ay yeneen moom il avait construit une nation avec des institutions fortes Abdou Diouf ñëw renforcer ko tey loolu moo ñuy xaw a sauver tuuti tam sauver guñu de nous ne sommes pas a à l'abri ci Macky Sall xanaa xam nga am na ñoo xam dafa mel ni jëlal l'exemple de Trump et des États-Unis waaw Babacar Babacar Wade nañu waxtaan rek Babacar xam nga yàgg nañu échanger ah ci euh, ci ci ci ci te duñu saagante bu ñu saagante Babacar nañu waxtaan rek échange la daal. yaa mi sa jigéen la càmmiñam nga euh, tu fais partie de la l'APR mu bokk fële xam nga bu ñu bu ñu bu ñu saagante Babacar ah dañuy rek échanger en toute civilité daal en toute civilité ci ñun ñun ci ñun suñu biir la. boo xoolee ku mel ni Donald Trump tey bu fekkul woon Amérique nekk dëkk boo xam ne institution yi kenn mënu koo salfaañee noo kon def li mu lu yàgg. dafa ñëw rek commencé indi gëm-gëmu boppam moom balaa ñu koy fal sax la toog ci benn euh, nu mu tudd euh, débat ak Hillary Clinton ne ko su ma faloo danaa wax procureur bi mu tëj la kooku ne ko kon xam nga nu dëkk bi di doxee kooku ne ko yow xam nga nu dëkk bi di ba mu ñëwee jéem na ko mais dëkk bi institution yu dëgër Macky Sall loolu moo ñu sauvé gum ci ci moom. Macky Sall fu mu toll loolu moo ñu sauvé gum ci moom am na yàlla suturaal nañu ba ci institution yi ak ci administration bi am na ñoo xam ne ba tey ña ngay bañ mais bu ñu ko seetaanee maanaam dëkk bi dëkk communiste lay dem ñu wax waxuma la troisième mandat waaye quatrième mandat bu amee deuxième mandat quatrième mandat sax dana ko am moo tax xeex bi dañ ko war a renforcer dooleel opposition bi te ñii nga xam ne nag recalé nañu seen candidature ci parrainage bi bu ñu bàyyi xeex bi ndax xeex bi tey la leen gën a concerné xeex bi tey la leen gën a concerné ndax dafa parce que ñoom li ñu bëgg def mooy ko à ah, conseil moo éliminé moo valider ñii moo validé Sonko moo valider Idi moo validé Khalifa moo validé diw moo validé diw moo validé diw kon bu ëllëgee bu ñëwee bu arrêté Khalifa bu arrêté këram ñu ne ah gore leen ba mu ba mu ba mu dàqee ñee da il prépare un coup extraordinaire le treize ak le vingt le treize ak le vingt le 13 janvier li ñuy njëkk joxe seeni lis provisoire ne ñii ñooy bokk su amee ay réclamation ñoo ñu def seen réclamation le 20 mu daal di définitif bu définitifee rek ñu dugg ci campagne électorale bi kon la pression encore mettre la pression toujours mettre la pression parce que du ñoom rek de parce que Sénégal aussi tamit dafa am ay xarit ay am di jàmm am ay kilifa kilifa yaa ngi déglu di seetaan am na foo xam ne bu fa réew mi tolloo kilifa yi dinañ jug ne a ah, def leen nànk am na ñoo xam ne tamit c'est des bailleurs dañoo investir seen xaalis ci réew mi te bëgguñu mu tàkk bëgguñu ko perte bu ñu ko nee à mettre la pression nag maanaam Macky Sall dana toog opposition bi toog. ñu jàkkaarloog toog waxtaan li ci des nag mooy li ci des nag mooy dañoo war a xam ni réew mi sunu réew la te ñun ñëpp ñoo war a jóg jàpp ci lu xale dox dox bi xeex xeex bi ak fu waay mun na nekk ci kër àdduna war ngaa mun a participer à ce combat là encore une fois de plus chaque semaine ma fàttali ko ne le Sénégal est à la croisée des chemins Sénégal tey tollu na foo xame ni ñi koy convoité moo bari ndax la ñu gis ci sol sous solam te pour na pas ñu tombe dans les mêmes travers des pays comme le Zaïre des pays comme le Gabon comme le Congo Brazza comme euh, l'Angola wala ay Libéria wala ay Sierra Leone dëkk yoo xam ne amoon nañu lu nekk ci seen sous-sol pour développer wu tey avec le pétrole découvert au Sénégal avec la gaz découvert au Sénégal avec le zircon avec l'or exploité au Sénégal depuis des années bu amul ay institution yu forte yu ñu mën a protéger rek musiba musiba ñëw te ñii ils ont déjà montré li nga xam ne ñoom moom la ñu bëgg ñoom la ñu dem joxe ay contrat am ci ay ristourne dañu dem signer ay contrat am ci ay ristourne ñoom loolu moo leen intéressé l'avenir de ce pays ne les intéresse point boo xoolee par exemple tey ñu naan la Dubaï ñii naan la xaw ma Abu Dhabi mais y' quarante ans cinquante ans de cela ay désert la woon ca boobu jamono da ngay gis ay or di gis ay pétrole fi nga xam ne moom mooy ay ay Gabon ay Congo Nigéria depuis cinquante six cinquante sept Nigéria mi exploité pétrole est-ce que bu ñu leen wanee Nigéria wan leen euh, euh, euh, ñu ne la Dubaay kat yaa 40 ans désert rek la woon mais xoolal tey ñoom naka la ñuy def ak seen ressource li ñuy jëlee ci pétrole bi pourquoi les pays africains mënuñu lu mel noonu mais pourquoi qui peut me le dire. kan mooma mën a wax lu tax ñun Afrique noire ñu def par exemple comme Dubaï pourquoi il y a 40 ans de cela Dubaï désert la woon le Nigéria exploité mi ngi doon produire pétrole depuis 56 wax ma la produire di ko jaay depuis 56 boo xoolee Nigéria nga xool Dubaï da nga naan ma mais alors tey bu ñu la doon yónni vacances tey fa ciy dem Cheikh Charles Thiam tey bu ñu la doon yóbbu vacances diggante Dubaï ak euh, Nigéria benn dëkk Nigéria fan nga ciy dem. Saliou Cissokho tu as raison le Sénégal n'est pas un pays pauvre mais les Sénégalais sont pauvres c'est comme boo joxe l'exemple de Kédougou on exploite l'or depuis depuis dans les années soixante-dix mais Kédougou est l'une des régions les plus pauvres au Sénégal donc il y a un problème problème boobu nag nos dirigeants ne peuvent parce que ku ci ñëw rek jiital say intérêt bopp alors à nous la population aujourd'hui d'avoir conscience ci loolu xool koo xam ne il incarne la rupture ñu fal ko ci réew mi il faut que ñu jël sunu destin en main <laughs> waaye Charles bul dem Dubaï nag waaye tamit ah doo dem euh, fee nu mu tudd Lagos yo tamit ah Sall ah Cheikh yi tamit Cheikh demal Lagos na yi tamit <laughs> finalement Mabele nee na moi je pensais moi à Boyna s'il est réélu waaw mais xanaa xamoon ni final am na ay localité Sénégal yoo xam ne tey bu Sénégal jaaroon yoon rek investissement yu war ñu dafa exe effectivement yu war lu ci mel ay île wala Saint-Louis du Sénégal wala les îles du Saloum bu ñu defoon investissement du war bilaay baadalu du fa dëkk. waaw d'accord Babacar Wade tu as raison le bon choix le bon choix mooy kan. a eu l'occasion de faire le bon a ah, en tout cas son ancien ministre de l'énergie nee na contrat bu ñu jox Total on avait mieux Tahirou Gassama nee na où votre ami Souleymane Jules Diop il est xam nga Tahirou y a beaucoup gens na ñaan way Souleymane Diop c'était un ami. Abdoulatif Koulibaly c'était un ami. Ceci ne veut pas dire que lu ñu xalaat laay xalaat démb tey lu ñu xalaat laa war a xalaat. Hier, on était d'accord ci un combat. Aujourd'hui ñoom ñu ngi mën a leneen moi je reste sur ce même combat-là. ça veut pas dire que ànd naa ak yow démb rek loo wax loo laa wax que aussi loo wax loolu laa wax moi je reste sur des principes mes combats sont des combats de principe je ne combats pas pour une personne mais je combats avec une personne aujourd'hui je me suis engagé avec Khalifa Sall C'est un combat de principe que je mène. combat de principe que je mène. Avant Khalifa Sall, j'avais choisi euh, euh Abdoulaye Wade à un moment. Man sama jeunesse yëpp Abdoulaye Wade laa mës a àndal. C'est en 2004 que j'ai décidé de ne plus euh, euh, ànd ak moom en 2004. Il a pris le pouvoir en 2000 en 2004 man àndatuma ak moom. donc Oya Souleymane Jules Diop mais mi ngi ci li mu nekk man maa ngi ci li mu nekk on ne peut pas devenir la personne par rapport a ñi mu doon àndal tey mun naa ànd sama cousin ya ami Diop bu subaa mun nañoo bokk ba ñàkk bokk gis-gis donc loolu mooy wane ni nu ku ci nekk say principe ngay jéem a ndax ndax yaa am dëgg wala amoo dëgg kooku yàlla rek a mais tey jii tembe le combat yi may mener pour mes principes ku koy gën a incarner mooy kan Khalifa Sall. ça pas dire que euh, euh, dama seey ci moom non j'épouse son combat je ne connais pas la personne musuma ko gis musuma ko dégg musuma wax ak moom mais j'ai épousé son combat comme quelqu'un d'autre a épousé le combat de Sonko comme quelqu'un d'autre a épousé le combat de Karim Wade comme quelqu'un d'autre a épousé le combat d'Idrissa Seck comme quelqu'un d'autre a épousé le combat de Macky Sall Babacar Yadd par exemple ah il n'est pas de la permis il faut un candidat oui oui il faut choisir Babacar il y une fourchette de candidats il faut en choisir un am na ñu ci ma contre kay mooy am nañ des Sénégalais yoo xam ne pour fuir les responsabilités dañ naan la nguur gi kat baaxul mais opposition bee yées kooku il fuit ses responsabilités parce que un choix opposition bi lu mu yées yées yées yées yées il faut choisir mais aussi il faut lancer un message fort aux politiciens ñu leen fii fii ku fi munti ñëw defoo naka sudul noonu dinañ la fi jëlee. waaw d'accord Babacar Khalifa jamais Karim jamais c'est ton droit le plus absolu man en matière de politique je ne pas jamais jamais pour le moment ki ma doy mooy kan Khalifa Sall yow Khalifa doy la ah Karim doy la wasalaam mais nag bu ñu teel tere gis ni Khalifa ak Karim Wade mi mais ñu am doole lañu Sénégal am na ñu ànd ak ñoom. mi Ansar nuy naa la Babacar Wade nuy naa la ñaang ñaang nuy naa la As Malick Badiane nuy naa leen yéen bu doon sama sago ñu continuer waxtaan bi waaye dafa fekk euh, temps bi jot na sama jëwriñ Sëriñ Samb maa ngi koy nuyu lu bari hmm? xam nga dañuy wax ni peccum liir bu neexee yaay jaa jàpp ca mbagg ba. ñu nit bu ñu amee sañ-sañu taxaw fii di wax dafa am ñoo xam ne dañoo ànd ak ñun nekk ñun duñu dooleel ku ci mel ni Serigne Sam moom dañu koy daal di ñaanal bu baax a baax a baax ak yéen ñi nga xam ne tamit yéen ñuy déglu du ñuy seetaan ndax ñun suñu théorie rek mooy moo xam ñaari nit ñuy déglu moo xam ñetti nit ñuy déglu wante nañu bëgg daal li nga xam ni moom la ci sunu xel jàpp jëmale ko ci réew mi. ñu wax ko di leen gën a ñaax nag di gën a ñaax ñu gën a fagaru te xam ni fii ak le vingt quatre février mbir yi day gën a tar wante nag ku xool ci engagement ma ñi ma gis ay mi mi mi en sar mi ñoom la Jóob ñoom yaay Ami Jóob ak yeneen jigéen ña fa ne ah ñoom na fi jàllo jeunesse bi tam commencé jug boo xoolee les patriotes de Pastef nga xool les karimis ah espoir am na espoir am na et tant que y a vie y espoir alors maa ngi leen di tàggu di leen jox rendez-vous mercredi incha allah pour beneen waxtaan ak samdiba den wax ni képp koo xam ni bëgg ngay jot ci sunuy vidéo ah mun nga abonné ci sunu chaîne YouTube enquête deux cent vingt et un Babacar merci beaucoup yaa ami merci merci Ousseynou Diédiou kooku kooku kooku moom kooku kooku <laughs> Ousseynou Diédiou combattant dëgg dëgg dëgg dëgg xam nga xam nga lan moo tax nekk duma duma duma duma du ma du ma PDS ba nekkoon naa ko toute ma jeunesse nekkoon naa PDS ah 2004 laa bàyyi PDS mais c'est-à-dire que ngëm pas-pas ak détermination bu nekk ci nit ñooñu c'est-à-dire que non c'est enseigné dans les écoles gis nga la candidature de euh, Karim Wade ak la candidature de Khalifa Sall détermination bi ñooñu wone mais c'est une force extraordinaire bu doon ñeneen ba tey ak lu ñu leen def yépp bàyyi nañu dem nañ defi leneen mais luñ leen mën di wax ñu ne leen xoolal ñun kenn duñu choisiral sunu euh, candidat non c'est extraordinaire ngëm-ngëm bu Ousseynou euh, non c'est extraordinaire ngëm-ngëm yooyu nag moo mën a avancer parce que gis nga ñu mel nii seen pré seen candidat bu ñëwee dañuy ranger wu à ñeneen ñëw parce que duñ ko bëgg sonal moo tax à chaque fois éternel recommencement bi di am Ousseynou Diedhiou vraiment nuy naa la lu bare bare bare bare bare bare lu bare même bu ñu xam naa ni ànd ak ñu mel ni yéen Sénégal am ñu mel ni yéen non je tire mon chapeau aux karimistes et aux militants du PDS ngëm ngëm cest on avait que petit est le nombre de croyants mais gis nga gëm boo ko amee mun nga jàkkaarloog nombre ba nombre bu bari gagné leen kon vraiment euh, seen sacrifice ça ne sera pas vain mis en sar moom ku nga xam ni xalifa euh, si de pur sang la moom gëm leen Viviane Safi ne na xalifa comme Nelson Mandela de la prison direct au palais ah Viviane amin yaa rabbana amin man de moom laa moom laa bëgg merci Viviane alors gërëm leen sant leen ñaan leen di ko sàkku ci yen on se donne rendez-vous ah, mercredi pour beneen numéro ak samedi ci kàttanu borom bi sen xarit seen doomu day am man Diouf depuis Houston Texas di leen ñaanal jàmm di leen ko amin di leen ñaanal très bon week Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao.